mais fashion victime yamu a loolu de car am na rubrique bu ñuy bon plan té lolo, yow mi am ce produit wala am ces exposition bëgg ko fesal yow ya ko tax a bu n'hésite surtout pas à appeler notre service commercial au 77 627 Moi, Comment li mimel ok voilà ok. Me voilà, Serigne Birahim Diagne, le présentateur de l'émission Cas par une émission qui, a priori, naît dans l'ambiguïté, mais au fil du temps, vous allez découvrir que nous y traiterons des sujets essentiels qui touchent tous les aspects de la société, notamment l'éducation, la politique, le social, l'économie, tout ce que vous voulez. C'est une émission qui touchera tout. was mu nga bëlis dafa ñeme ñàngu ñàngulu ko ay yee tax ñàngu ñàngulu mel na picc ramata da war a rek noonu jaar fi la ëpp ah, <laughs> gaaw gaaw yow xoolal gaaw ba ci nekkee. <laughs> du question wu da nga koy ñëw My name is Ndeye Arame Guissé. I am years old. tey nga de nga mën a monter rek. s'appelle Ousseynou de la Saint-Louis TV. lay jël force. mooy jël waay force laa lay jël. dala met. ceeb Hein. Allez-y, à flow. Au moment des votes, votez pour elle. Parce que si vous votez pour elle, vous ne votez pas pour elle en personne, mais vous votez pour tout la, toute, la population, toute, la, toute la population saint-lésienne du Ouest. Ok, Vous allez voter. Ah, c'est drôle de la bokk internet Saint-Louis TV ñu ngi leen di nuyuwaat fii di leen dalal fii ah! dama sax waaw. lu xew lu xew moom. lu xew. mami. dama bëgg xam lan moo xew. seen fii moom lan la. ma réaction monsieur la. waaw. ma mu jël mu ko ku nekk stade. demee na Colina. Eh, ban sax man ma ko sax. bu laal sama sax. dëgër boobu rek. bu laal sama sax. ñu dem ba. kay kay kay kay dem ba. Marie génne ma. waaw gis nga gis nga comment. joxe sax bi gis nga ko problème. mais booy sa loxo sa loxo gaaw la day passé place nag. nii rek ngeen di def. ngay ñëw di jaay la classe. xoolal sa bopp ci kaw ba ci suuf. ni nga rafetee. ok je comprends mieux. da nga am bu gudd di wut bu gàtt. si état bi. surtout la. kay kay taxaw foo jëm kon ne mu yomb. sama mbokk jigéen ñi yéen laay waxanteel te lu ko fi jar tabaski gannaaw suba nga dugg si butiku jàmbur di sàcc pour lan loolu dara bu leen jaral ngeen perte seen ay dignité seen personnalité loo xamante ni nii ay valeur yu ñu ràññale si femme sénégalaise pour lan loolu dara gënul neex ñàkk jëriñu. bokkut bokk bokk bokk bi tax bokk. jaabira ça va. wa jaabira. man Khoudia Laye maa ngi di présenter cette émission à qui la parole chaque dimanche sur deux fii ci Saint-Louis TV yow mii di acteurs de développement yow mii. Bonjour, je m'appelle Day Aram je suis la chargée de communication de la télévision en ligne Saint-Louis TV. Nous sommes des jeunes engagés pour notre communauté, mais aussi des amoureux de la communication. Nous avons besoin de vous. <laughs> N'hésitez pas à vous abonner davantage en max pour nous jàppale ñu am internautes yu à alors on se donne rendez-vous comme toujours sur Saint-Louis TV TV de là <laughs> Ousseynou <laughs> loolu rek mënuñu ko dindi. loolu rek. Eh, donc di leen ñaan ngeen gën abonné ci chaîne bi di leen ñaan aussi ngeen di partager suñu ay vidéo et sur ce je vous dis à très bientôt sur Saint-Louis TV restez toujours connectés avec Saint-Louis TV soyez des Saint-Louisiens non foofu dama koy dama koy bëm. Eh. Et donc, la violence. comme ça comme ça